sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma baadu mbokki julli ginnaaw ba ñu sante yàlla di seede ni moom rek moom moo yeyoo jaamu mooy buur bi nga xam ne mooy yeyoo jaamu amul kenn ku yeyoo jaamu ku dul moom di julli ci ab yonante muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ak ay saxaabaam ak mboolem ku topp ci njub ba keroog yàlla di tekal jaam ñi ginnaaw loolu dañuy ñëwaat ak yéen seen jotaay bi ni am ak yéen ci téere bu am solo bi mooy buluuxul maraam ñu nekk ak ci kitaab bu am solo mooy kitaabu siyaam ñu war a nekk ak yéen incha allah tey suñu jotaay juróom ginnaaw ba ñu ci xadis bi nga xam ne moom moo doon wax ci wàllu sopp gu gaaw a dog dañuy ñëw ca contraire ba rek tey mu nekk suñu jotaayu juróom-ñaareel mu jëm ci. sopp nga xam ne sopp nañ ko yéex a xëdd kon ni nga xam ne lañ soppee nit ki bu wooree ba ngoon jot dog jot jant bi so mu gën a gaaw a dogee koram rek loolu mooy loolu lañ gën a sopp waaye au contraire ni ki noonu bu fekkee nit ki daa woo dog ba war a commencé at kooram fajar di waaj a xar am na lekk goo fay tuddee mu la tuddee euh, xëdd loolu nekk naa di ko yéex a def loola ko nee na loolu nekk luñ lu sopp moo tax mu ni an anas bnu malikin radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tasaxaru fa inna fi saxuuri baraka muttafaqun aley jël nañ ci saxaaba yu màgg boobu mooy anas yal na ko yàlla gërëm anas ibnu malik qaala wax na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi yàlla bi nee na tasaxaru maanaam di xëdd fa inna fi saxuuri ndeka nekk na ci xëdd barakatan ab barke boo xam ne ni dana ñeel ki nga xam ne moo ko taxawee xadis boobu nekk na xadis boo xam ni muttafaqun alayhi la buxaari ak muslim toppoo nañ ci kon loolu moo nekk tënkuk xadis bi ci olof la sàkk ne daraja xadis bi maanaam niveau bi nga xam ne xadis bi am na ko ci góor li koy wane rek mooy muttafaqun alayhi la buxaari ak muslim toppoo nañ ci buxaari yi génnee ko ci saxiixam fi kitaabu siyaam bu baabu barakata suxuuri min xayri ijaab lii bunt la boo xam ne dafay leeral barke bi nga xam ni xëdd am na ko waaye nag nekkul loo xam ni daa war doomu aadama mu def ko waaye su ko defee nag def na sunna def na lu ñu sopp muslim tamit génn na ko ci xam mu nekk xadis boo xam ni xadis bu wér la kon nañu ñëw tënk ci gaaw lenn ci àtte yi nga xam ni xadis bi làmboo na ko bi ci njëkk xadis bi dafay tegtale tegtalu gu wér ni sopp nañ lool ci jullit bi su bu dogee ba war a commencé at kooram mu def li ñuy tuddee xëdd xëdd nag suñ ko waxee mooy lekk bi nga xam ni ñam bi nga xam ni doomu aadama dina ko lekk bu demee ba nga xam ni mu ngi waaj a commencé kooram maa ni ngay lekk bu fekkee daa da ngay waaj a commencé ca koor bu ñuy waaj a salaasu salaatu nga jug jël dara lekk ko ngir dëgërloo ko ci koor gi loolu ñuy tuddee xëdd kon bu fekkee dafa dangaa lekk lekk bu teel loolu kenn du ko tuddee xëdd ma mais reer bu reer bu yéex lañ ko tuddee kon xëdd daa am heure moo tax ci arab dañuy wax ni bu fekkee da nga ni tasaxaru fa inna fi saxuuri saxuur moom mooy euh, li nga xam ne moom moom la lekk bu fekkee ah, saxuur nag mooy heure bi nga xam ne ci la ko doomu adam bi def kon xadis bi mën naa firi ñaar yëpp maanaam sopp nañ. lekku heure heure xëdd maanaam lekk bi daa am barke wala heure xëdd ci boo xam heure la boo xam ni heure bu am barke la ñaar yëpp borom xam-xam nee nañ mën na hadiis mën na koo làmb parce que wax dëgg yàlla heure boobu tamit heure la boo xam ni heure bu am barke la parce que mu ci man aaxiru layl maanaam mujjanteelu guddi bokk na ci partie yi gën a am solo ci guddi mooy heure boobu kon heure boobu am na dayoo ci heure waaye am am na dayoo ci lekk bi nga xam yaa ngi koy lekk heure boobu noonu. kon benn bu ci nekk daa am baraka kon sopp nañ lool yow jur bi soo naree woor loo tayel tayel bu heure boobu jotee nga jug jël lenn ci xeetu lekk yi nga xam ni da ko mën a lekk nga jëfandikoo ko yéen a ci xëdd yéen a ci roy yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu mooy àtte bu njëkk bi nga xam ne dañ ko ciy jël mooy sopp guñ ko sopp lool ba tey bokk na ci àtte yi nga xam ni am na ko mooy wax nañ ko sàng lekk yooyu dañu lekk heure boobu daa am bara daa am barke barke boo xam ne nag day nekk baraka diini ah, dunyawiya wa baraka kazalika diiniya ci côté diine am na barke parce que la sakkani barke gënt a rëy nit ki def jëf boo xam dafay dëppoog jëfi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wala mu def jëf parce que yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa moo ko digal jëf yooyu mooy xeetu jëf yi ëpp barke ci jëf kon côté côté boobu ci côté diine dafa am barke kon nit ki war na koo fonk lool di ko bàyyi xel di ko def tamit te koy royee sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bokk na ci barke bi nga xam ne am na ko muy barke ah, ya day tax doomu aadama bi am kàttan parce que lekk la boo xam ne boo ko jëlee mooy li ngay mujjee lekk après bis bi yëpp da ngay toog heure bu yàgg boo xam doo lekk kon loolu dafay def effet sa kàttan yaram ba tax boo xëyee suba jaamu yàlla yi nga war a taxawee surtout doo lompañ doo ñàkk doole mën ko taxawee li nga xam ne na ko war a taxaw seen mbiri liggéey àdduna tamit dana la may kàttan ba nga mën cee dem lu sore sori kon lekk heure boobu noonu am nag barke ci côté boobu noonu na tax sa bis bi dëgmal doo ci sonn sonn goo xam ni doo mën a taxawee sa mbir yi nga xam ne danga ko war a def moo xam mbiri diine la moo xam mbir yi nga xam dafa jëm ci wàllu mbiru àdduna kon loolu mën nañ koo dégg lool ci hadis bi nii ba tey bokk nañ ci li ñuy dégg ci hadis bi mooy lekk heure boobu dafa dafa nekk loo xam ni dafay wuute ak li nga xam ni lu jiitu woon ci suñu ay diine yu bokkute ak diine islaam dañ ko daan def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa nee na euh, li nga xam ne moo tàqale diggante suñu woor ñun ak wooru yahudi rek mooy lekk bi nga xam ni danañ ko lekk ci fajar moo tax mu ni faslu ma bayna siyaamina wa siyaami ahli kitaab yi aklu saxur axrajahu muslim nee na muslim génn na benn xadis bi wax ne yonante bi salaa salaam nee na li tàqale diggante suñu koor ñun jullit yi ak kooru yahud yi nga xam ñoon jiitu woon ah li tàqale rek mooy ñun bu fajar jotee dañuy jug lekk dara pour mën koo commencer suñu suñu koor kon loola ba tey dafa bokk ci li nga xam ni maanaam cosaan la ci diine islaam muy faral di wuute ak diine yi xam ne ñoo ko jiitu woon surtout mu nekk diine yoo xam ni dañ koo soppi bala fa lu ëpp la cosaan nekkatu fi woon moo tax boo ko xoolee ci bunt yu bari yonent bi sallallahu alayhi faral di wuuteeg yahuud ak nasaraan yi ci ay ay jëf yu bari def leen dara ngeen ngay wuuteeg ah, xeetu sàngam def leen dara ngeen ngay wuuteeg ah, diine sàngam loolu mabda la ci diine islaam kon nag gisaat nañ ko fii moom bokk na ci tàkkan diggante wooru jullit ak wooru ñeneen ñu dul ñoom ñoom dañuy teel a xëdd ñun nag dañuy yàq xëdd wala ñoom sax duñu xëdd te ñun dañuy xëdd kon lu am solo la liñ ci eh, jeexale rek mooy soññ goo xam nañ ko sonn suñu bopp di ko soññ ñëpp mu nekk na bu am solo ñu bañ koo doyadal parce que lenn ci nit ñi heure boobu heure bu mu nekk heure nelaw dina tax ñu tàyyal ba duñu jug taxawee sunna boobu noonu am na ñoo xam ne sax lekk heure boobu day xaw a jafe ci ñoom loolu tax na ñuy sàgg na sunna boobu waaye loolu lépp ay lay la yoo xam ni warta taxaw ci kanamu jëfe sunna yonante bi sallallahu alayhi wa sallam te mu nekk lu simple ndox sax boo ko naanoon ci heure boobu yéen a ci xëdd maanaam yéen mat na te la nga def loolu xëdd lañ koy tudde boo amee ñett ñett doomu tàndarma nga def ko ba tey xëdd lañ koy tudde lu lekk oyof oyof rek kon ñi nga xam ne ñoom ñi nga xam ne mënuñoo lekk heure boobu nañ jëf loolu nga xam ne mën naa lekk mu jël lu xaw a dëgër lekk ko ba tey loolu sax mooy gën li xam ne moo gënati kon daal sunna la boo xam ni am na barka ci àdduna am na barka ci àllaaxira ëpp naa sàggane képp kuy ab julit da ko war di respecte di ko bàyyi xel di ko toppatoo kon loolu moo jëm ci xadis bi nga xam ne dafay wane sopp gu ñu sopp yéex xëdd wala ak xëdd sax ci boppam kon loolu moo nekkoon xadis euh, sunu jotaayu tey di ñaan sama borom defal ñu dégg ak topp defal ñu nungu ak jaamu yàlla jégguñ suñu bàkkaar haza wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain